alhamdulillah وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen am yéene yi amaat ak yéen jataay doon amal muy di indi xista yi yonente yi ci di ko leeral mbokki jullit yi ngir ñu mën cee jàngate tey jii ñu agsi ci sayiduna isa alayhi salaatu wasalaam sayiduna isa nag mooy ki mujj ci yonente bani israil yi alayhimu salaam su borom tudd na ko ci yonente li yonente bi ndax dafa wax yonente bi ni ko yonente yépp net net liwuma leen net liwuma la leen waaye ñenn nat ñi laala net li ñu gis net li ma la def te dañuy wax ni yonent yépp bu ñu àndee ak ñu ñu ñi ak ñi sol ñëpp bu ñu àndee ñu ngi toll ci xakadun téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay yonent muy ku ñu sol yónni ko ak ki ñu sol te yónni wuñ ko bu ñu booloo ci lim boobu la ñuy toll fa xakadun waaye ña ca na ay yonente yu ñu sol yónni leen ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett alxuraan nag ñaar fukk ak juróom rek la ci tudd ñaar fukk ak juróom yooyu Iisa ibn Maryam alayhi salaam la bokk alxuraan nag da dul téere bi histoire dama koy wax jamono bu ne ne du téere boo xam ne taarix a ko tax a jóg tàmbalee ci bopp ba di nettali ba màgg lu ci ne xissa bu ne day seet la ko ci gën a itteel nit ñi mën cee jàngale mu leen jubloo jàngal mu jaa mu tàmbalee ko foofu yemale ko foofu moo tax kon bu ñuy nettali histoire Isa dana ci am lool ci alxuraan lañ ci lañ koy sukkandikoo li ci des ñu li ko jëlee ko ci boroom xam-xam yoo xam ne dañ ko jële woon ca téere yu jëkk ibnu kasir nett na ci lu bari lu bari ci moom laa koy sukkandikoo insha allah waaye ma ne alxuraan nag am na ay aaya fukki maa ngi natt lu mat juróom-ñeenti juróom-ñeenti saar yu bokkut yoo xam ne bu ci ne tudd nañu ca mbirum sayidna isa alayhi salaatu wasalaam waaye ci biir juróom-ñeenti saar yooyu ma ne am na ci fukki tomb ak ñaar yu fés yoo xam ne lu ci ne day leeral mbirum na isa boo ko defee loolu laay jëkk leeral ba noppi loolu dugg ci détails yi incha allah bokk na ci li alxuraan indi leeral juddug Seydina Isa mu juddoo ci ndey ci ludul baay loolu suñu borom mi ngi ko nettali bi muy wax ci mbirum Maryam bi malaayika yi waxee ak moom ni ko suñu boroom dana la may doom mu wax ni nan lay amee doom te kenn te jaxasuwuma ak góor suñu borom ni ko noonu la ko malaaka bi xamal ko ni ko noonu la ko suñu borom dogale dana la doom joo xam ne daal mi ngi tudd Masih Isa ibnu Maryam Isa ibnu Maryam dana bokk ci ñi nga xam ne ñu ñu jublu la doon ñu ñu dëgmat la doon ci àdduna ak alaaxira bokk ci ñi jege yàlla dana waxante ak nit ñi ci berso lalu liir dana waxante ñoom buy magum jëmm te ci nit ñu baax ñu la bokk bi mu ko waxee bi ko malaayka yi waxee loolu nag ci la laaja ni waaw nan laay amee doom te mbindeef laalu ma ñu ne ko kazalika allahu yaxluqu ma yasha suñu borom mooy doxe noonu lu ko neex rek lay bind isa xadee amran fa innama yaqul lahu kun fayakoon lu muy dogal daal ci baatub kun fayakoon la koy dogal waaye alxuraan tudd na it ne loolu yi kat kiimaan la mooy juddu ci ndey ci ludul baay waaye nag buñ ko xoolee ci kàttanu yàlla nag euh, lu mën a nekk la ndax génnul ba loolu lépp nag muy judd gi mu juddu ci ndey ci ludul baay wax gi mu wax ak nit ñi ci lalu liir du tere mukk rek mu nekk jaamu yàlla bokk ci mbindeef yàlla yi suñu borom misaal ni misaalum Isa moo ko aadama rek ñooyam wala sax aadama kuy seet moo gën a yéeme ndax kii dafa judd ci ndey ci lu dul bàyyi aadama moom dafa dafa am yàllaa ko amal ci lu dul ndey ak bàyyi jarul ci benn ci ñaar yi loolu laa alquran di wax ne inna masala isa inda allahi ka masali aadam xalaqahu min turabin summa qaala lahu kun fayakun misaalum isa fa yàlla moog misaalum aadama rek ñooyam ci suuf la ko binde ne ko kun fayakun mu daal di nekk waaye alxuraan leeral na it ni am na ci béréb bum leeral la ni Isaa waxante na ak nit ñi ci ba muy nekk ci lalu liiram setal yaayam ci dañ ko doon tuumaal wax ni it suñu moo ko def mu di yonent dénk ko julli ak azaka li feeg mi ngi dund la suñu borom wax ci alxuraan ni xaala inni abdullahi aataaniyal kitaaba jaamu yàlla boo xam daal daf maa jox ab téeréem wa jaalani nabiyan def ma ma dib yonent waja jaalani mubaarakan aynama kuntu def ma doon ku ñu barkeel su ma mën a nekk waaw feeni bi salaati wa zakaati ma dumtu hayya mu dénk ma julli ak asaka li fekk maa ngi dund wa barram bi walidati ma doon nit kuy topp sama ña sama wajur wii walam yajal ni jabbaaran shaqiya def ma doon kuy bandi bu def lu ko neex doon ma ku texee wasalaamu alayya yowma wulidtu wa yowma amuutu wa yowma ubaasu hayya ñeenteelu li ci lu alquran tudd ci mm, ci mbirum isa mooy leeral na ci béréb ne isa kat yonente bi la di baatam bu mu sànni ci mariam di ak leer gu bàyyi ko ci moom loolu mooy suñu borom wax ci benn ci aaya ba ni innama almasihu isa wa kalimatuhu atqaaha ila maryama wa ruhum minhu naka noonu yàlla leeral na ni isa kat du jomba nekk jaamu bi yàlla moom la wax ni lan yastankifa almasihu lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun waaye suñu borom leeral it ni isa maa ko yónni muy dëggal tawreet waaye di bégle it ci dikkuk yonente bi muhammad salallahu alayhi wa sallam loolu alxuraan wax ne wa is qaala isa bi mariam ya bani israil inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min altawrati wa mubashiran bi rasulin yati min baadi yasmuhu ahmad loolu incha allah buñ duggee ci détails yi dina gën a leer ci alxuraan leeral na ci ba tey ne Isa dafa woo bani Israel ci ñu gëm ko gëm li mu leen andil jooy ko fi yàlla bokk na ci li mu leen andil nag mu daganalal bani Israel lenn ca lan la ñu ara lañ leen la ñu araamaloon ci ñoom ngir yar leen dafa am loo xam ne suñu borom jublu leen yar moo tax mu araamal ko Isa ni leen loolee nag wàccee nañ leen ko léegi mën naa dellusiwaat loolu mooy wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrati wa li uhilla lakum ba'da alladi hurrima alaykum wa jitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun ndax dafa am yoo xam dañ ko araamaloon ci ñoom ngir mbugale leen ko waaye du woon euh, lu war a araam définitivement loolu mooy fa bi zalmin min alladina haadu harramna alayhim tayibatin uhillat lahum su boroom leeral na ci alquran ba tey ci yenn te aaya ne yàlla moo ko xamal alquran téere bi xamal ko xikma jàngal ko tawreet ak linjiil loolu mooy wa yuallimuhu alkitaaba wal xikmata wa tawreeta wa linjiila wa rasulan ila bani israil mu leeral it ni isa andil na leen kiimaan gu jóge ci seen borom kiimaan yi mu leen wan mu jóge ci yàlla nag mooy daana daana daana daana daana tabax ci ban lu mel ni am picc wol ko mu daldi naaw ci saasi isa daana fekk ku judduwaale ak ngumba docteur yépp tële ci ni mën si ko faj mu faj ko isa daana faj siti isa daana fekk ku dellu yàgg mu dekkal ko isa daana leen wax lañuy lekk ci seeni kër ak lañuy denc ci seen biir néeg te loola doon lu sori ab gisam kon dekkal ku dee ak sos ak dund te mooy def lu mel ni njanaaw mu tabax ko wol ko mu daldi naaw ak puus ab dund te mooy wéral ay tawat ak xaybu wu ko sunu borom xamal te mooy la ñuy lekk la ñuy denc ci suñu biir néeg moo leen ko leer loolu ay mujjisaat la yoo xam ne buñ ko dajalee bu ñu xoolee ci yooyu rek laaju mooy sos ak dund wala delloosi ak dund wala delloosi jàmm te jàmm ab bànqaas la ci dund ak nag won leen loo xam ni lu sori ab jëtam la mu doon kiimaan yu suñu borom def ci moom muy ay kaatéef yoo xam ni bu sunu borom bindee ñoom ak ngëm danañu ci jaare ngir gëm waaye alxuraan it leeral ne am na ñenn nag ci bani Israil ñu ko wuy si ci woote boobu muy woote ba mu am ci ay ay saxaaba ay àndandoo te loolu mooy ba Isa demee ba yëg seenu weddi la leen ak ginnaaw bu mu leen wan li mu leen wan ci ay lépp mu yëg ni nañ la woote nag ni leen kan mu may jàppale nag ci woote bii may woo woote jëm ci yàlla man ansaari ilallah foofu la ko xawaari yoon yi tontu ne ko nahnu ansaarullah amanna billah washhad bi anna muslimun kon noonu ko suñu borom dogale ci Isa la koy dogale ci yonent yëpp dogale ko ci bépp borom pas-pas fokk rek suñu borom dana ko dogalalal mbooloo mu bokk ak moom pas-pas boobee jàppale ko ca woote ba jël woote ba di ko jàllale ca ñañ ko mën a jàllale moo tax suñu borom bi ba Isa wootee ni ñan ñoo may dimbale ci sama woote bii ñuy woote jëm ci yàlla xawaar yoon yi ñoo ko tontu ne ko noonu ansaarullah aman naa billah washhad bi anna muslimun alxuraan biral na ci béréb ci fukkeelu béréb ne yahud yi jànkonte guñ doon jànkonte ak mbirum isa ak sàkku guñ koy sàkku rey ak xiirtal sax buur bi ci rey ko leeral na it ndamu gu ñuy ndamu ci ni ñoom ñoo ko rey waaye suñu borom leeralaale ci biir ni kat yàllaa ko musal yëkkati ko waaye ñoom reyuñ ko salabuñ ko waaye yàlla da na a jox niróoleem da ko niróole ak nit ñu rey kookee jàpp ni kooke la ñu rey jàpp ne rey waaye Isaa kenn loolu la suñu borom wax ni wa qawlihim inna qatalna almasiha isa bna mariam wa ma qataluhu wa ma salabuhu daal di wax ne rasulullah daal ne waaye ko salabuñ ko walakin subbiha lahu wa inna alladina ixtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum bihi min ilm ña cay woote it ñu ngi ci ay sikk sàkk lañ nekk waaye amuñ ci xam-xamu yaqin bu leer illa tibaa zanni wa ma xataluhu yaqinan bal rafaahu llahu ilayh fukkilu tom bi ak ñaar suñu borom leeral ci sàkku gi xawaar yoone yi sàkku woon ci isa mu wàcceel leen taabal ju jóge ci asamaan loolu ba tey mi ngi feeñ ci aaya bi wax ne hal yastatiu rabbuka an yunazila alayna maidatan min alsamai suñu borom biral ni leeral na leeral it ni wàcce na ni ni wàccuk isa ci barab leeral na ci ni dikkuk isa ci àdduna mandarga la ci mandarga bis penc mu wax ni wa innahu la ilmun lissaa am nañu jàng la alamun lissaa muy màndargam bés penc la ak wàccam loolu ba tey bokk na ci tomb yi alxuraan jot leeral alxuraan leeral na ba tey ni Isa ginnaaw bu ko yàlla yëkkate bis penc dana ko laaj ne ko a anta qulta linnaasi ittaxiduuni wa ummi ilaahi min ndax yow mi yaa wax nit ñi ñu jël la yaag sa yaay di leen jàpp yàlla bàyyi yàlla mu leer rek Isa weddi gum weddi loolu ni waxu leen ko subhaanak maa yakunu lii an aqula lii maa an aqula maa laysa bi haqq ni ko mukk man nekk waxuma ko in kuntu qultuhu faqad alimta bu ma ko waxee xam nga bu ma ko waxut xam nga loolu waxuma ko alquran leeral na turu isa aku mandargaam aku meloom ak aw dàkkentelam turu isa ci alquran mooy isa ñu di ko dàkken ñu di ko mandargaale almasiix di ko dàkkentale ibnu mariam aw meloom mooy abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaa ila mariam wa ruhun minhu isa turam ci ibriya ci ibrahim mooy yasoo sin wow ñu di ko bind yasoo sin su tooy lañ ci nam mooy kii xettali jaam ñi duñ di wax ni mooy sababu kii sowe jaam ñi ci réer gi ñu réeroon waaye nag li gën a ci li nga xam ne historiens yi bind nañ ko ci dund isa alayhi mooy lii may bëgg a wax muy askanu isa isa ibnu mariam bintu imran imran nag aw askanam bu ñu ko toppee dana dem ba jokk ci yonente yàlla daawud alayhi salaam mu bokk ci sëti yahuza yahuza kenn ci doomi yaqub yi de yaqub di ibnu ishaq ishaq di doomi ibrahim loolu moom euh, historien yi dëppoo nañ ci ne aw askanam lim nañ ko sax nag tudd ci ko tudd tudd tur yi waaye wuute yu bare moo tax ma tàyyi ko tudd waaye lañu dëppoo daal mooy Isa ibn Maryam bintu Imran Imran askaram woowu bu ñu ko jàllalee mi ngi dem ba ci yonte yàlla Daawud yonte yàlla bokk ci sëti Yahuza Yahuza di doomi Yaqub Yaqub doomi Ishaq Ishaqa di doomi Ibrahim abul anbiyaai alayhim salaatu wasalaam loolu mooy di nga xam ni eh, nettalikat yi waaye dëppoo nañ ci ku mel ni ibnu Ishaq ak abul Qasim ak eh, te loolu it moo sax ci injilu matta juddug isa alayhi salaatu wasalaam sayyidatuna Maryam ab ak ëmbam isa alayhi salaatu wasalaam ci injilu matta mu wax da cay wax ni Maryam dafa am ku ko daan labat ku ñuy wax yuusuf an najjaar mu ni ba mu tollee ci di ko bëgg nag jëkk muy ànd ak moom jëkk muy sóobu bu mu gis ne dafa ëmb yuusuf doon nit ku baax lii may wax bible bi moo ko bind mi ngi ci ancien nouveau testament bi ci injilu matta mu wax ni Yuusuf noonu nit ku baax bëgguta wuññi mbiram waaye mu dogu ci bàyyi ko ndànk ci suuf génn ca mu dogu ci génn ci bi mu nekkee di xalaat ci mbir moom yi la ko am malaayka feeñu ci gént ni ko Yuusuf ibnu Daawud bul tiit mukk li ngay tiit ci soxna si amu ci ndax li mu ëmbi ruuxul xudus la leeru suñu borom la dana am doom nga tudde ko Yasuwa ndax mooy xeetli problème ci seen ñaawteef ñu wax ni nag bi Yuusuf yeewoo dafa sant yàlla dal di continuer wéy nag di ànd ak Sayyidatuna Maryam jërub dundam waaye ñu ne ko daal mën nga koo bàyyi ba mu am doom nga dul koo jël waaye loolu yi ko ëmbal daal du jógewul ci doomu aadama waaye leeru suñu borom la su borom noonu la nettalee ambu bi nga fa xamalathu fantabadat bihi makaanan xasiyan nee na bi mu ko amee dafa dal di randu dem ci béréb bu sori ibnu kasir wax ni maryam bi mu ambee daf ci am xat-xatu xol xam yét ni ñu bari ci nit ñi danañ coow tuumaal danañ yàq ab deram muhammad ibnu ishaqa di wax ni dafa siiw lool ci bani israil ne e, xale bu jigéen bee di doomi imran dafa ëmb te ci jaamukatu yàlla yi la bokkoon mu wax ni am nañu ci ak jaax loo xam daal kër imran daal e, ak nit niti njabootu Zakaria daal am nañu jafe-jafe boo xam ni e, kenn amu ko ci ñu jamonoonteel nee lenn ci naafiq yi tuumaal ko Youssouf moom yi ni kii ko doon bëgg di ko déclaré ak bëgg ko moo ko def te fekk moom mu doon jaamu ko ci yàlla bu daan jaamu yàlla di ànd ak di moom nekk moom ci jàkk ji loolu moo waral Mariam dem làqutu ji dem beru ji loolu yi mooy maanaam li suñu borom wax ci alquran ni fa xamalathu fantabadat bihi makaanan qasiya ba mu demee nag ba toll ci matu bi ko mat wi feeñoo mu wéeru ci ak ëkkub tàndarma xam na nit ñi dinañ ko tuumaal te duñ ko dëggal mukk bu leen andilee doom rawatina nag mu bokkoon ci jaamkati yàlla yi ñi beru woon bokk ci kër këru nubuwa bokk ci kër diine yi gën a fës loolu daal jaaxal na ko moo waral mu amee ci njàqare lu rëy ba àgg sax ci mébét nii aka neexoon ma deewoon jëkk tey wala aka neexoon ma bañoon a am loolu moom la suñu borom wax ci alxuraan ni xaalat yaa laytanii mittu qabla haada wa kuntu nisyan mansiya aka neexoon ma deewoon jëkk lii mbaa sax ma bañu na am waaye foofu mu mébéte loolu ci wetu ak utàndarma yi lañu wax ni ca la ko jibril wooye fanaadiha min taxtiha alla taxsani woo ko ci koronam ni ko bul jàq ndax sunu boroom defal na la ak dex ci sa pegg muy dex goo xam ni karaama la ci saas la ko la ball dex gu daw di ko ëkku tàndarma boobu mooy den den boo ko gësamee dana la indil tàndarma ju tooy nga lekkal te naan te dalal sa xel nit ñi xam sa mbir ak ñàkk ko xam du la wàññi dara bu ñu waxan bu ñu la laajee bu leen tontu nee leen dama ne seere woor tey ba duma wax fexeel ba noppi rek nee leen duma wax kenn tey ñoom nag dafa bokkoon ci seen koor ci seen sharia bu ñu wooree dañuy bàyyi wax bàyyi lekk loolu xataada moo ko wax ak ñoo assudiyu ak ibnu aslam waaye ñun ci suñu sharia bii nag dañ cee sib ko woor di ci boole di ñàkk wax woor ba tax doo wax dañ koo sib ci suñ sharia Isa mu ngi juddu ci dëkk béréb bu ñuy wax baytul laxam Betlem ci bisu talaata di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre comme ni mu saxee ci taarix wax gi Isa waxoon ca bersu ba Isa bi mu juddoo soxna si jël ko ñëw ci nit ñi dafa nekk mbetteel ci ñoom mbetteel nag mën naa indi ay tuuma ñu ne ko yaa uta Haaroon yow mbokkum Haaroon maa kaana abu kibra asaw in ñu ko ah yow day sa du woon nit ku kàccoore sa ndey di du woon ab euh, caaxaankat loolu la su ma wax ne fa atat bihi qawmaha tahmiluhu qaalu yaa Maryam laqad ji'ti shay'an fariyan shay'an fariyan mooy mbir mu rëy mu màgg mu ñaaw di andi nga ko ñu ne li tax ñu niroole ko Haaroon di ko yaaw te Haaroon na dañ koo niroole benn jaamukatu yàlla bu bokkoon ci ñi daq jaamu yàlla ci seen jamono ba Mariama daan géngeeg moom ci mën a jaamu yàlla mu tudd tuddoon Haaruna moo tax ñu di ko wax ne ko yow mbokkum benn waay bu kàccoore la ñu jublu ko ñaawal ko yow yow mbokk rakki Haaruna mbaa magi Haaruna loolu Saïd ibnu Jubayr moo ko wax am ñu ne déedéet Haaruna mi ci jublu mooy mbokkum Muusaa dañ koy nirale ak moom ci jaamu yàlla ibnu kasir wax nag ni ku ñu wax muhammad ibnu kaab bu dey alxuraasi yi jóom na jóom na ci wax gi mu wax ni mariama mii mbokkum muusa la ak haaroon ci askan ndax diggante mariam ak muusa ak na ay seekal ay at yu bare bare dox diggante bi am na ci xadis bu wér ne Mariam dafa amoon mbokkum askan mbokk mu bokkal mu tudd Haroun loolu xadis bi indi ko ndax imam Ahmad nettali na jële ci jaare ko ci fa mu koy jaar ba àgg ci Mughiratu ibn Shu'ba mu wax ni yonente bi daf maa yónni woon Najraan Najraan Euh, daanaka chrétiens yi jóge woon Najraan sax ñoo gën a sabab njëlbeenu Ali Imran lépp wàcc di wax ci mbirum Sayyidatuna Maryam mun Najraan googu ba ma fa yónnee dañ maa wax ne ma yéen li ngeen di wax seetlu ngeen ko waay yaa ngi wax yéen ngi jàng ci seen alxuraan yaa waxta Haaroon te diggante Moussa ak Isa diggante bi kenn xamul ay ati ati at la ne na ma jaaxle dal si yonte bi wax ko ko yonte bi ne ni ma mënu leen a xam mënu leen woon a xamal ne leen dañu daan tudde seeni yonent ak ñu baax ña leen jëkkoon seeni doom nga xam tëj ko rek ni kee lañ ci jublu mbokk Moussa Ibrahima ay tondoon xataada ak ñeneen wax ne daanañu bari lu ñuy tudde turu Haaruna woowu ba wax nañ ne am na benn néew buñ doon julee lu mat ñeent fukki junni nit teew fa ñoo xam ñoom ñëpp Haaruna la tudd kon euh, tur bi Haaruna moomu mën naa bokk ak Mariama benn baay bekk ak moom ndey ak baay waaye fekk dañ koy tuddee Haaruna mi nekkoon mbokkum Seydina Musaa waaye seen diggante mu sori na lool kon xadis bi lim tegtale mooy dafa amoon mbokkum askan mu tudd Haaruna siiwoon it ci ak jaamu yàlla ak mbaax moo tax ñu ne ko maa kaana abuki imra asaw in wa maa kaanat ummuki baqiya yow de bokkoo ci euh, dëkkoo foo xam ni daal lii seen màndarga la waaye nag ñu tuumaal ko rek ñootif ibnu jarir wax na ci ab taarix xam ni dañ koo tuumaaloon Zakaria muy ko yar yonte yàlla Zakaria ci boppam lañ tuumaaloon ni moom moo ko euh, teg loolu yi moo ko ëmbal ba bëgg ko rey mu daw bañ ko dabee mu dem ba jub ak garab garab bi xar mu dugg ci biir waaye seytaane jàpp ca catul buma ba tax ñu xar garab ga ba xaraale ko ci digg ba mun moom lañu rey noonu moom Zakaria mi jóge xeex am ñu ni Yuusuf ibn Najaar moom lañ ko tuumaaloon moom mi ko doon bëgg ba mu daataan leer lañ ko tuumaal ñu da ko doon bëgg far def ci loolu lii waaye du wax ji bare yeddeel yi bari jaaxle yi bari ñu di ko laaj nanguwuta tontu waaye mu joxañ leen doom ji ñu gën a merati ne jàpp ni di gën a sabote ni ko kayfa nu kallimu man kaana fi mahdi nan la ñuy waxante ko mi ngi nii di ab liir tëdd ci berceau bi foofu nag la suñ boroom ñëwee ak kàttanam wax lu Isa mu ni leen inni abdullah man mii jaamu bi yàlla laa ma joxub téeréem dafa ma di yonent def ma may ku ñu barkeel fu ma mën a nekk dénk ma julleeg asaka li fekk maa ngi dund wasalaamu alayya yow ma wulittu wa yow ma amuutu wa yow ma ubaatu hayyan kon wax ji Isa jëkk a wax dafa bëral ni moom jaawu yàlla la muy ak njaamam la jëkk a saxal ba noppi luñ mu doo ko caa teg daa di wax su ma borom jox na ma ab téeréem def ma def yonante te yàlla de ak nubuwa du ko jox ku demee noon yi ñu wax ndax ku kuréel ci yahood yi dañ daan wax ni wax ju ñaaw daf ko ëmb eh, ci jamono yu bi rek moom dañ daan waxe ci seen mbon laanahumullah yàlla seetal ko ci loolu ñu wax wax ni Maryam siddiqa la ab doomam ji ab yonente la bu bokk ci ulul azmi ñi gën a doon tànneef yonente sax ci la bokk moo tax mu ni wajaalani mubarakan aynama kuntu te mooy fa mu mës àgg moom Isa di leen di woo ci jaamu yàlla wéetal yàlla ba mu ne dénk ma julli ak asaka li maa ngi dund it loolu mooy e, mission bi nga xam ni mooy liggéeyu jaamukaay jaamukat yàlla yépp muy taxaw ci àq yàlla taxaw ci rafetal si dëggati jaam yi loolu mooy liggéey bi jaamu yàlla yépp war a liggéey waaye zakat jooju mu wax it nag ñu ni wax ni làmbowaale na laabuk euh, setu bakkan ci jikko yu rafetut yi làmbaale it setal alal ci génnee la ca war a génn jox ko fukaraaw yi ak génnee ca àqi gan ñi ak di la ngay dundee la njaboot gi yooyu yëpp bokk na ci tatxirul amwaal muy setal alal yi daa cee te nga wa barran bi wàlidati wa barran bi wàlidati ma doon kuy topp ma wajur wi wala may jàll jabaaran saqiya ndax def moo doon jabaar te mooy kuy ñaaj def lu ko neex def may may ko taxee di daal ne wa salaamu yaa ma walit wa yaa ma amut wa ak yaayam doon ki ñoom ñaar ñuy yàlla yi ñu borom eh, yi di wax ni Isa bi mu demee ba am juróom-ñetti at la ànd ak way juram ñu dem ca haykalu suleymaan ca baytul muqaddas foofee lañ ko dugg la dugge no néegu góor mu tudde ko Isa bi mu ne fan damaa ko way juram way yaayam yóbbu ca haykalu suleymaan ñu duggal ko néegu góor mu tuddee ko yasoo comme ne ko Jibril digale woon ba mu koy digale Isa màgg dund ci ron kaaraangey ndeyam ñu sori lool Baytul mi gañ juddoo woon ga mu juddoo woon ñu dem ci benn tund muy ab dëkk bu kawe bu am ak dal ak sécurité am ndox mu neex lu yéeme la ndax aw tund la wax ba noppi tund bi en même temps mu am béréb bu lu mel ni aw xur ba ndox mu neex man faa nekk mu mufassiroon yi nag euh, tund woowu yi alxuraan junj wax nañ ci ñeenti wax yu bokkul ba ci jëkk mooy dañoo wax ni mooy Dimashq waxu ñaareel bi am ñu wax ni mooy Ramallah ci Palestine Palestine ñetteelu wax bi am ñu wax ni mooy baytul maqdis ñeenteelu wax bi nag am ñu ni déedéet misra lañ ci jublu wax jooju mujj jooju nag muy misra lañ ci jublu ji moo dëppoo ak li dikk ci injilu Matta mu wax ni Eh, Isa mi ngi juddoo ci baytulahmi yahudiya ci jamono yi buur bu ñu wax Hérode bi mu juddoo nag dafa am majuus yu jóge ca penku ñëw Jérusalem laaj ni waaw ana ki fi juddu fan yi mooy buuru yahudi ndax ñun kat gis nañu biddiwam mu fenk ca penku yooyu ñëw nag ngir siyaare si ko buur boobu ñuy wax Hérode bi mu déggee wax yi dafa cee am njàqare moo ko waa Jérusalem ñëpp mu dajale mbooleem kilifa yi dajeetukat yi mooy ñiy gëstukat te nekk tomb ak eh, boroom xam-xam yi laaj leen ni leen isa ibnu isa fan la war a juddoo masi fan lay juddoo ñu ne ko ci bayt la xam lay juddoo Hérode moomu daal di woo majoos yi ndànk ca suuf wóorlu xibaar bi ak biddiw bi ni mu feeñe daal leen di yebal ca baytulaamu ngir ñu gëstul ko xale bi boobu judd mun leen bu ngeen ko gisee ba mu leer leeral leen ma ko ma ànd ak yéen siyaare ji ko comme ñëpp waaye ba ñu ko gisee ñoom ba dem ba gis Isa ba joxe seeni hadiya dañoo walbatiku suñu borom feeju leen ci gént ni leen bu leen demaat ci Hérode ñu daldi wëlbatiku jaar beneen yoon dem ñibbi lii injilu Matta moo ko nettali ba ñibbee seen réew Hérode moomu gis ni majoos yi dañu ko woyefal dañoo woyefal kàddoom dañ koo xeeb moo tax mu mer daldi ni bépp xale bu juddoo ci baytulaam ak la ko wër am ñaari at jëm suuf lu ci dara ci ñaari at jëm suuf rek dañ ko rey dañ ko rey Yuusuf daal di gént ci biir gént ñu xamal ko ni ko jëlal xale bi ak yaayam te daw dem Misra toog fa loolu ma waral Yuusuf jël Isa ak ndeyam daw dem Misra foofee la nekk toog fa sax fa ba Hérode moomu faatu bi mu faatoo Euh, mu feeñuwaat ko moom malaayka mu feeñuwaat ko ci gént digal ko mu dellu Israil waaye bi muy dellu it mu dégg ni doomu Hérod moomu ñu di ko wax Arxilaawus Arxilaawu moo fa wuutu baayam mu ragal ci lam doon ragal ci baayam moo waral mu dem fu ñuy wax Jalil promesse bi ñuy wax Jalil dem ci dëkk bu ñuy wax an Nasira naasira googu mu dëkk fa nag foofu la ñuy askanale nasraan yi naasira mooy dëkk bi Isa dëkkoon foofu yi ci Jalil moom la ñuy askane nasaraay loolu daal mooy gàttalu li injilu Matta nett li ci mbirum demuk Isa ak yaayam ca Misra eh, te mu dëpp ak eh, rab boobu bu alxuraan tudd وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعيث rabo jooju ñu doon nattable te ñii wax ni lii la ñu ne la ñu ne la ñu ne misra la misra yooyu laa wax ni moo dëppoo ak li nekk ci injilu mata allahu alam isa mu jógee di ñëwaat mi ngi toll ci juróom-ñaari at foofu nag la màgg ci xéwal ak xikma wax nañu ne bi mu demee ba am fukki at ak ñaar la ànd ak ndeyam ak Yusuf moomee ñu dem baytul maqdis ngir aji fa ci ni ko sharia bi nekk ci taw di déglee ba ñu demee ba jeexal seen ñaan ñu wër ko gisuñ ko ñu dellu seen barab jàpp ne dafa ànd ak ay bañ demee ba ci dëkk ba fekkuñ ko fa ñu am ci jaax lool di ko gëstu di ko wër di ci sonn ñu ne ba am ñetti fan yéen ko fekk ci haykal ba mu nekk ci digg borom xam-xam ya di weranteeg ñoom ci sirrub nubuwa ñu yéemu lool yéem nit ñëpp ci laaj ya muy laaj ak tontu ya muy tontu ak ku ngoneem nga xam ne sax euh, tàmbalee gu te jàng yaayam yedd ko lool ni ko li nga teg con yi mu ne ko nag xamal nag ni euh, liggéeyal yàlla nag moo jiitu liggéeyal way ñaari wayjur daal di ànd ak ñoom dellu naasira eh, taxaw taxawaay bu rafet ci li ko war ci wayjuram muy sayyidatuna Maryam comme ni ko suñu borom waxee wa barran bi waalidati wa lam yaj'alni jabbaaran shaqiyan wa salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ub'asu hayyan dañuy wax nag ni histoire nag nettalikat ci histoire dañuy wax ni taarix nag ginnaaw bu mu amee fukki at ci mbirum Isaa ba ni mu amee fanweeri gi ñëw kon incha allah dërsi bii ñu jëm ci la ñuy tàmbalee ci risalatu Isa alayhi bi mu amee fanweeri at di ñaan suñu borom mu defal mu ak dégg ak jariñu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu